téléspectateurs yéen nga xamante ni a safoo site internet yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu seen tur ak sant euh, tey nag ñu ngi ci bésu appel Seydina Limamou Laye borom yaa masharal jinni ni macha allah partout au Sénégal ñu ngi koy bàyyi xel à travers jëf ju ji ni moom lay def waaye à travers milieu bi nga xamante ni ci la tey nag li ñu gën a intéressé mooy appel bi nga xamante ni moo fi dajale yaa awa ñu ngi lay char baax baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi delloo ziar bu baax a baax euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan mbokk internet je peux dire bi nga xamante ne bii ñooñu safoo ñu ñu ñu topp fu nekk. maa ngi ziar ñëpp di màggal ñëpp ci bisu appel bi nga xamante ne bii mooy 143e appel seen alimam alayhi salaatu wasalaam ñu bëgg doon nag ay dëgg-dëgg taalibe. Mm-hmm. ndax nekk taalibe moom neex na ci làmmiñ waaye est-ce que ki ki ngay ci ki ngay ci jox sa sa taalibe est dina la ko nangu ñu ñaan yàlla bokk ci taalibe Seydina Limaamu yi bokk ci nga xamante ñu nangul ne bàyyi laay moo rasulullah te gëm nañ ko wóolu nañ ko aussi moo tax yàlla may ñu kàttan ak fekk ba ñu fekk wat ko ren euh, gis ni euh, ci li nga xamante ni moom lañ gis démb ci cérémonie officielle bi ak tey aussi tamit li nga xamante ni moom la kilifa diine di ñaan mooy jàmmi réew te jàmmi réew mi nekkul ci kenn ku dul ñi nga xamante ni ñoo ngànk réew mi actuellement muy les hommes politiques ci jàmm jooju est-ce que moom la kilifa diine yi wax ci jàmmi réew mi waaw xam nga paix intérieure mooy li am solo ci doomu mm-hmm. parce que jàmm boo ko amee sa biir xol moom ngay reflété ci loo nekk mm-hmm. parce que comme lu ñuy wax suñu sang bi li mu ñu jàngaloon mu Chérif Ousseynou Laye mm-hmm. ñun ndax yaakaar naa ni daaw ñëw ngeen fekk ma ma appel mhm. sama kër laa ko defee mhm. ren ma am ndigal sama sëriñ dama damaa bëgg nga ñëw ci biir kër gi mhm. fii kër sëriñ Ousseynou Laye la den rek la jaaw yaakaar naa ne jàmmalaay mu ngi suñu ginnaaw nga ñëw nga appelé ci biir kër gi te bu doon leneen la na du ngeen ma gis fii mu jox ma ndigal li ma ñëw defee ko fii ak kontante nag ak fierté ndax loo def benn yoonu mu jig la nga defaat ko sa biir kër sëriñ ki nga yaakaar doyloo ko àdduna ak àllaaxira mhm. kon loolu rek sant yàlla la mhm. parce que am na ñoo xam ne peut-être doon nañu wax que ne est-ce que moom dina appel ak déwén mhm. yàlla dimbali ma li ma gënoon bëgg li ma gën a bëgg sama at la ma yàlla defal mooy fii ma ko defee muy kër sëriñ Ousseynou Laye kon man kuy sant rek man maa ci war a jiitu saa su nekk parce que yàlla chaque jour mu ngi may suturaal di ma dimbali di ma yokk ba may mën a jël si sama xéewal yi ma yàlla defal mu koy def ci jëmm ji nga xamante ne aw ma lu dul moom yaakaaruma ku dul moom. Mm-hmm. àdduna ak alaxira bu nee yaakaar nag du dara moo li lay yokk jom. Mm-hmm. parce boo xalaatee nit ki ne kii moom laa bëgg moom laa doyloo. Mm-hmm. te woowu la ci lenn lu dul diine jëf ju baax ak wax ak nit yi ci anam bu teey te sell ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox ci diine la ñu yar ci la ñu màgg ci incha allah ci lañ bëgg a dee incha allah ba dekki fekk ji bàyyi la. mais est-ce que tamit nekkul polémique yi nga xamante ni ginnaaw appelu daaw ba nga ko defee mu jur polémique ci àdduna bi yëpp taxu moo tax sëriñ bi jël la xëcc la ci wetam pour nga defee ko fii nga xamante ni coow li yëpp moom dina ko mën a dégg ko après. non du coow xam nga li ma waxoon daaw moom laay waxaat ren mooy ñi fi nekkoon daaw yaakaar naa ni ñooñu tey ñoom ñu ngi fi waat. Mm-hmm. te ñoom ñu fa nekkoon ñëpp gisoon nañ la fa am. Mm-hmm. du woon dara lu débordé peut-être bu dee lenn lu déborde la askan wi gisee ko loo xamante ne bi dulu dulu dulu jaar yoon mhm. te ku ne xam na ne ay xiir ñu koy utiliser bari na ci kër diine yi mhm. te ñooñu ñoo fa nekkoon suñu mbokki murit mhm. ay cantaaku ñëwoon pour ziyaare si ma indi ko waaw peut-être bi déggin bi bokkul woon ak nit yi liñ doon xaar ci waa kër Seydina ndax kër Baay Laay kenn ñu ay dëgg kenn ñu dara te bañ ko defee génn nañu ñu jéggalu ñi ñu war a jéggalu mooy ñi nga xam ne bokk na ñoom ñoom tarixa bi te amaana gisewuñu ko gisewuñu ko loo xamante ne loolu la demee mhm. à part loolu man gisuma ci lu mal te comme moom ni ñu ko waxee xam nga yaakaar naa ne sama sëriñ man bu ma meree woon du ma ne ma ñëwal ñëwal nga appelé ci man danaan mhm. danaan kii nañ ko bàyyi mu dem mhm. mais waaw comme li nga wax protection boobu la ci bëgg moo tax mu ne naa sama su ko defee lépp day nekk benn kenn du kenn du ci frustré wu te kenn du ci am lenn loo ci wax ko am ñaaw. d'accord ci dress bi ñu ngi si est-ce que mun nañ xaaral wala da nga ñëw rek simple. non xam nga xam nga dafa am loo xamante ne bii loo loo daan def defatoo ko soo ko deful dinañ ne dafa am lu tax. te nag dara taxul parce que tey lañu gën a sant li may wax bu dee ay xéewal la tey lañ ko gën a am kon ñun yàlla fàttewuñu di. te bu dee ci cadre te ñu ngi yëg suñu suñu bopp que ne ñun ñu ngi yokk kon loolu sant yàlla la te duñ ko santee kenn nag li may wax santew ñu ko Jean santew ñu ko Paul bu ñu santee yàlla ba pare dañ naan santu nit doo sant yàlla ñun lu ñuy sant Serigne Ousseynou Laye la ñuy jiite suñu sant keneen kuñ ci teg ñu teg la ci parce que am nañu ay yaay am nañu ay pap mais ñun amuñu kenn ku dul Serigne Ousseynou amuñu kenn ku dul Mame Seydi muy doomu Serigne Ousseynou di taawam nekk ci kër gi dalal ñëpp ubbi buntu yi amul kenn kuñ ne defal lii wala defal lii dañoo ubbi bunt yi ñëpp ñëw pour lekk ñu appel appel Seydina Limamou ci jàmm ak selaam ak fair play bu ñu paree ñëpp nekk ci jàmm ñu xewlu lekk naan parce que lépp a ngi fi nag. kon mun nañu xaar sànq xewlu sañse fépp la ñuy fàtt ci lekk amuñu amuñu kuñ naan lii wala laa lu waaye indi rek di ko fi fekk bu dee jàmm la mu ngi fi safaan nag ñaan ñu ko suñu borom ñu ngi ñaan suñu borom gën ñu jàmmal daal dimbali incha allah. question ah, amoo leen question. Ah, si vous li may li may wax rek mooy damay santaat yàlla di gërëm nit ñi nga xamante ne fu ñu ti nekk ci àdduna bi ñoom ñu ngi xool parce que da ngay gis ba appel jotee ku nekk mu ngi naan xam nga rek ñu góor góorgóorlu di xewoon bañ a xewaat nangam ak nangam leen wax que ne ñun ay nit la ñu conscient mm-hmm. ay nit yu am éducation yu ñu yar lañu parce que lenn loo def boo ko defaatee loolu màttay la mm-hmm. kon loolu dañ ciy tirer exemple pour bañ ko defaat pour war a nekk ci yoonu siraatal mustaqim ci jikko ak jëf ndax nit yor na alalam def ko ci lu ko neex waaye ñun préféré nañu ñun appel bu jeexee tey ci guddi tey la ñu commencé waa dajale jëmaat déwén parce que lii mooy suñu yitte lii la ñu am lii kese la amuñu leneen moo tax ku ma fekk si si yi man dama lay du ma la tegoon fii dama lay yëkkati parce que amuñu lu dul naa Seydina Limamou amuñu leneen man événement bi gën a mag sama àdduna appel la ci laay yëgee ni man mbégte mi may am du ko am ci benn événement mm-hmm. xol bu sedd may am moment bi lu ma wax dama la koy baax yéen xam ngeen sax li ma leen di wax lu ma waaye wax dama la koy baal lu waaye def dama la koy jéggal parce que Seydina Limaamu rek la ñu am te bés bi mooy yem mook bés bi mu woote woon ajiboo daa yàlla yaa man saral insi wal jinni nii rasulullahi lay ko mhm. ñun nag ñu gëm ko ci bu wér tooguñu pour bëgg a gëm ñi déedéet danoo xool ba xam li mu wax ndax dëgg la mhm. ñu gëm ko wóolu ko xam ne moom rek kase la yàlla yónni ci bu wér ñu gëm ko mhm. waaw loolu rek ñu gis ni jamono bii yéen nitu showbiz ñu bari dañoo changé maanaam ci wàllum diine ñii buñ defee buñ fooyee ba heure bu leen dee bu gàmm jotee dañuy gàmm bu màggal jotee dañuy gàmm mais dañ koy def ci norme yi nga xamante ni moom la ko yàlla bëggee yonent bi bëggee ko noonu sëriñ bi nga xamante ni ci lañ cokk bëggee ko noonu est ce a dem ba ci biir xam ne li ngeen nekk du dëgg ngeen bëgg a retourné waat nekk ci yoon bu jub waaw xam nga yàlla moo sàkk guddi sàkk bëccëg kon wax chaque jour léegi wan naa guddi ak bëccëg mhm. su guddi amul woon bu doon woon amuñu doon dara lu ñuy làq-làqal yàlla du sàkk guddi day bàyyi lépp muy leer mm-hmm. ku ne teg sa bët waaye am na loo xam ne nit du ci teg bët nit du ko sax felesu ba di ko xool mm-hmm. kon am na ci loo xam ne boo nee danga nga ciy nekk parce que am na loo xam ne liggéey la mm-hmm. sow business la boo nee show biz show business la bu amee business nag mooy loo xamante ne bii danga nga ciy liggéey nekk ci pour li nga war a am nga am ko parce que boo liggéeyul ci biti mënoo indi fii pour nga sant faaw nga liggéey pour nga liggéey faaw nga nekk ci dara pour mën a am indi ko sëriñ bi parce sëriñ bi dañoo toog di ko xool ay bët mhm. wala nga naan lii laa gëm nekkoo ci dara booy taxaw ci dara dangay am ndëgër laay ndëgër laay bi mooy liggéey mhm. benn secret la boo liggéeyee da ngay am loo mën a jë jëriñoo ba doo taxaw ñaan kenn mhm. sant nañu yàlla nag ba appel bi defuñu ci kenn yóbbuñu soutien kenn do tàllañu kenn carte defuñu dara woone nit ñu am na leen dañuy dañuy appel ñëw leen ñu appel ci jàmm ak salaam le reste nag suñu borom dimbali ñu ba saa su nekk at bu nekk heure bu nekk ñu mën di ko def comme ni nga ko waxee sànq nga ne nitu showbiz yi nitu showbiz amul ñëpp ay doomu aadama lañ peut-être ku nekk da nga am ci cadre boo nekk di ci exercer di ci liggéey comme ñun ñi nga xamante ne bii dañuy woowee ay influenceur dañuy influencer ay nit pour que ñu mën ñu xool ñu mën a jaay lu keneen di jaay ñu mën ko ñu mën ko posté ku nit boobu jënd ko loolu liggéey la parce que ki ngay posté daf lay fay show bi nga nekk mooy que ni ki nekk ci show bi kooku moo mën a jaay lu nit yi di comme xam nga diine dara jaayu dara dara mayoo fi lépp dafay jaay parce que jëf bi ngay jëf suñu borom daf la koy fay. Mhm. te léegi lim la koy fay mooy loolu looy liggéey la avant tey nga mën ko jëf fii nii pour mën pour mën a jël loolu exploité ko ci ni nga ko mën a exploité sans nag ci gis-gis yi. Mhm. mais conviction moom solo gëm-gëm moom solo te nekk na ci ñun am nañu yaxin que ne ñun ay taalibe lañu yoo xamante ne tuxuñu ñu defuñu naka su dul noonu jëfi àdduna yóbbuwuñu ñu ngi fexe di matal waxtu julli yàlla yi di woor di génn asaka di saraxe li ñu war daal ñu ngi ci am nañ suñu werde heure yi ñu ko war a werde lañ koy werde bu ñu ci paree pare nañ ci suñu paree nag dañuy sol suñu dàll dem dox suñu soxla alors yaa wax da nga wax sànq si métier bi ngeen liggéey yaa war hmm. que des fois ñu moom ay jaan jaan bu amee sëñ bi naka lay réagir ak tant que tey journée bi est-ce que am na conseil yu mu yu mu si jox bien sûr man lu mënti xew muy muy suba di ngoon di fajar daf may woo téléphone defal nii defal nii defal nii keroog ba appelu daal ba wax ji amee moom moo ma woo jox ma ndigal dama génnal nga jéggalu bu du woon moom man man naa toog fi ma toog man amu problème boobu mais lépp looy def comme lu may wax da ngay jiital sa kilifa moom mooy sama kilifa te ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox saa su nekk et que ñun amuñu benn problème ak kenn dëgg yàlla loolu la